moo xam ne ni li ñu koy faral di gis yenn ci candidat yu ñu bañaloon seen candidature te ñu bokk ci front démocratique pour des élections inclusives def ñaari waxtu ci bureau greffe bu cour suprême ngir kalaame ji. Euh, yàgg nañ fi ñoo ngi jéggulu mais liggéey bi moo ko laajoon. ñett fan gannaaw bu ñu dooree campagne électorale bi ñii ñuy woowee candidat spolier fas yéene kalaame décret bi nga xam ne ni moom mooy woo collège électoral bi. bu fekkee juróom-ñett fukki fan te yow nga yàkkamti bu boobaa dañuy dajale député yi ñu dem ca assemblée la yoon wa tëral ñu dindi ko def délai boo xam ne yow di nga ci mën a sukkandiku convoqué électeurs yi. bi conseil constitutionnel jëlee dogal ngir ñu amal jongante falum njiitu réew bu atum 2024 njiitu réew mi jëloon décret ngir convoqué collège électoral bi waaye boobu la décret ba ñu koy jël bés bu jongante yi war a am matul juróom-ñett fukki fan loolee tax ba ñu jàpp ni dafa wóoroo ak texte de loi yi. code électoral dafa ne président la république sañ naa convoqué. électeurs yi ñu ñëw wote si waaye diir bi ci gën a gàtt juróom-ñett fukki fan la code électoral bi dellu wax ne campagne électorale premier tour ñetti ay bés la war a doon bu deuxième tour amee mu nekk ñaari ay bés gannaaw bi nga xam ne ni processus électoral bi amoon na ab gàllankoor ba ñu woote woon waxtaan ci ab dialogue national mu di jaloog yi nga xam ne ni conseil constitutionnel dafa rejeté woon conclusion yi. ba tey yenn candidat yi nga xam ne ni dañu leen bañaloon seen candidature ñoo ngay woy ba tey di sàkku ngir ñu amalaat bileeg processus électoral.